ñoo ngi dogalee convoi bi nga xam ne moom moo war a yóbbu dund bi ci lenn ci sañ-sañ yi nga xam ne nemmeeku nañ ko fii ci Touba foofee ca Daaru Fall ci leeral muy gox goxaat boo xam ne lu yàgg ci ginnaaw nekkoon na ay tool ci sëriñ Abdou Chakour Fall moom maam Cheikh Ibrahima Fall askan wi nga xam ne nag moo nekk fii seen loxo jotul seen ginnaaw waaye tamit anam bi nga xam ne ñoom lañ fi nekkee métti na lool muy tolluwaay goo xam ne nag xalif général des Mourides bàyyi na ko xel lool moom sëriñ Mountakha Mbacké mi nga xam ne naka jekk diir bi nga xam ne mbas mi dugg na Sénégal léegi di yëkkati ay jéegoom di ko def ci askan wi bile yoon nag lim bu takku ci dund rawatina ceeb la daal di yëkkati jagleel ko askan wi nga xam ne ñoo féete fii ñu am ci mbégte mu tar. ndimali day xanaa sant rek tey ñaan mu yàgg fi te boo lëggee bu leen nu fàtte ndax kat réew mi ci wallu boppam ni ma ko mën a jàppe mooy cin lu tàng amul fenn foo xay fi am na gol fépp a tàng cin bu baxee mënoo faa génne fenn fu sedd fépp a sedd tàng waaye nii mu ñëwee tey ak mbette gi nu bette yàlla sëñ Tuubaa ak xam na ne li ci waay ñaan nee naa leen lu ci waay ñaan ci ceeb bii di ko lekk nanga nga ñaanal mun Muntaxa yàgg fi ak njabootu gépp Kéem Baye Dame Sey moom mi nga xam ne mooy chef de village bi Baye Fall yi fi yeewoo nag am nañu cant goo xam ne yëkkati nañ ko jëmee ko seenu kilifa. wax dëgg yàlla am ndimbal yi moom tawféex la ndax fi ne nii heure bu ñu xëyee ñi ngi daw ci marché di wuti lu am di fóoti ñu ngi fóoti di taxani di def lu nekk kon lii bu ñëwee wax dëgg yàlla am sant yàlla tawféex la. di sant bu wér di sant yàlla sunu borom bu wér di sant Serigne Mountakha tey ñaan sama borom guddalu fanam ndax mbir mi mën naa ne guléet la te nun dëgg la mbir mi feebar bi tax na àddina bépp yittewoo nañ ndimbal li waaye nag Darou Fall mel na ne maa ci raw joo gis nag dox la waaye mel na ne noo ci raw ndax li waral loolu. sama dafa dogal dañoo dëkk te di ay sancaan li ci ëpp doole lépp di ay néew gi doole di ay jaboot te xam nga ne dëkk bi gis nga ni mu soree li ci tax dolliku yoon fi jëm sax bi ngeen di ñëw xam ngeen ne ngeen di jafe-jafe la ca dolliku du ndox du courant du dara boole kook nu xaw a sori dëkk bi bu baax soreet war waay ba tax na saa boo jógee dëkk bi jëm si fi sax ci ay jafe-jafe ngay nekk kon nag bu sëñ bi waxee lii def lii nun dañ ciy doolee sant bu wér xam ne am na dolli dañuy gën a dolliwaat suñu yaakaar bu wér ak suñu bëgg ak suñu yéene ci moom xam ne tey di ko ñaanal nag mu yàgg fi sa dolli noo dimbal ba lépp li di ay tënkaaneem ak i santaaneem sa borom tënkuñu ci foofe ba du mën a génn ndigal jëm fenn. seddale gi nag ñoo ngi ko dénk direction générale bu Hizbut Tarqiyyah ci kilifteefu Serigne Athio Diagne kuréel gi nag nga xam ne moom lañ dënk liggéey bi ràññeeku ko lool ci lu nu mel ginnaaw ay at yoo xam ne yàgg nañ cee liggéey xalif généraux yi. dem nañ dem ba fa nga xamante ni fa la sancaan yi nekk mooy sancaan mooy eh, ñi nga xamante ni dañoo dëkk fa dëkk ba yem ñu tàmbale foofu ñëw bi ñu joxee ndigal yi nañ ko defee mooy dañoo ñëw def programme de recensement kon démb lañ ko tàmbale def programme de recensement ci mboolem kër yi nga xam ne kër gu ne dugg nañ fa jël boroom kër ga jël numéro téléphone am jàll ci geneen kër ba euh, euh, gox boobu jeex euh, séddale bi ci ñeenti xible yi la jëm xibla bu ne dinañ fa dem yóbbu fa la nga xamante ni moom la digle ñu yóbbu ko fa waaye bu ñu demee fa da ngay tàmbalee ba fa dëkk ba yam ñu tàmbalee foofu. Darou Fall li ma leen wax par ñaar par kenn la ñu jox ba mu jeex ñu séddu ko séddu bu yiw bu amuk taalube bu baax bu rafet boo xam ne bii amuñu si benn intérêt seen bopp. ñuy sant itam sant nañ sëñ bi waa ñoom ñi nga xam ne la sëñ bi yabale sant leen ba fakkaram yàlla liggéey bii nag jëm ci séddale dundu gi bokk na ci gox-goxaat yi nga xam ne moom lañu ci gën a bàyyi xel muy sancaañ nekk fii ci Touba loolu nag ci ñeenti xibla yi ngir wàllu si askan wi nga xam ne ñooy am ay jafe-jafe ci mbas mi di covid 19 xalif général des mourides nag mu ngi ko dooree ci buntu dëkk bi mooy sancaan yi nga xam ne nag askan ñi fi yeew daanaka seenu installation demeewut noonu ba waral seen dem beeg dikk bi ak lenn ci li nga xam ne ci lañ doon jaar ngir suturlu am ci jafe-jafe lool. ñoo ngi fii nag diggante Feto ak Daaru Fall fii nga xamante ne ne fa lañ dogalee ñi nga xam ne ñoom la kilifa gi dénk lépp lu jëm ci séddale dund bii muy taw tawfee goo xam ne askan wi ñu fekk sant nañ ci bu baax. tey jii dangeen a gis ay camion ñu koy chargé di wàcce fii di dem ci xeb la bu ne mu jëm ci eh, ñi gën a cate ci dëkk bi ci sancaan ya waaye nag li may war a jëkk a leeral mooy nag moom de lii mosu cee jóg ma da daan génne ci ay magasin di dem ci fépp ci njaboot gi njaboot gi ci dimension yëpp maanaam tolluwaay yëpp ku ci nekk euh, lii teraanga lay warugar lii ndimbal lay doon lii euh, euh, ku yor sa njaboot di leen di leen taxawu la kon taxaw bi yàgg na lii nag tey da koo dikkee mu war koo séddale Euh, li nga xam ne ñooy mbooloo mi moo tax mu jël ko teg ko ci sama loxo ma ànd ko waa daara jëpp nu koy def ci xibla yi lim bi ni mu toll dañ koy xaaj ñeenti xaaj ñeenti xaaj yi euh, gox bu ne dina ci am euh, ab lim maanaam ñeenti ñeent camion bii nga gis ñu sarse nii mooy bu weex bii moom 15 ton lay sarse bu demee da koy wàcce ci benn xibla mën na doon benn village mën na doon ñaari village mën na doon ñetti village mën na doon ñeenti village fii dañ fi def benn stock di ko chargé par quinze tonnes muy dem waaw ñeent ñeenti xible yëpp nag la dem léegi da ko da ko dimbale nit ñi jàppale leen ko ndax naka jekkitam mi ngi koy def musu cee jóg du benn jamono du màggal du koor du du waxtu wuñ ko soxla te génn ca magasin ba nag ñu def ko ci camion mu dem waaye tey ji lii dafa xaw a gën a yaatu ñu war a ñu war koo euh, yaatal mu jëm ci ni nga xam ne réew mi yëpp foo dem ñu ngi séddale waaye euh, moom itam xam naa lii ci loolu lay dugg moo tax mu di ko jàllale ci nit ñi rek amul benn camion boo ci xam ne taxaw na këram ba fa jëkk a wàcc euh, da man mii maa ko fa jëlewaat euh, mu dem yeneen yi nga xam ne moo ci topp itam benn wàccu ci kër direct lay ñëw fii ci daara ji dem direct mu dem ci li nga xam ne mooy seeni borom